ci euh, tàggat yaram ak Ligue africaine de champions ñaareelu euh, pacc bi euh, génération foot nag daal nay dalal ab délégation ci teewaayu jëwriñ ñi dénk tàggat yaram ministre conseil Youssou Ndour ak njiital fédération sénégalaise de football solo si nag mooy dooleel kon footballeur yooyee ngir nag seen jano ak Oroya AC ñu daal di nag mën am ndam ñu yaakaar nag ne kii di génération foot bu defee kémtalaay kàttanam kon dana daal di mën dañ ci ànd ak ab délégation bu mag la ñu def daal di seeti jouru génération fouti yi laale ak ñi nga xam ne ñoo nekk Orea AC ci éliminatoire bi nga xam ne moo jëm ci wàllu Ligue des champions ministre conseil Youssou Ndour ak ministre des sports ak président fédération sénégalaise de football dem nag ñaax leen bu baax a baax jàpp ne war nañoo mën a gagné te li nga xam ne moo nekk union sacrée maanaam ñëpp booloo ci ginnaaw équipe bi rek moo mën a tax ñu am ci ndam lu rëy. nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de l'union fait la force. jamono ji danoo toll ci mbooloo mooy doole ci boobule dynamique la ñu toll ñu boole ñu ñëpp sunuy doole ñun sénégalais yi maa ngi woo sénégalais yi yëpp sax ñu daal di def ab dànk nekk ci ginnaaw génération foot fii nag ci la ñu toll te football nekkatul mbiru 11 contre 11 football développement la émergence la te jour bu ci ne daal di sol maillot na nga jàpp ne yow footballoo pour yow kese waaye 14 millions de sénégalais yi nekk sa ginnaaw ñoom nga war a football daal di def jom mën a am ndam Sénégal ou représenter le Sénégal sache que tu joues pour quatorze millions de football nekkatul mbirum for rek mbirum dëkk ak dëkk la moo tax ministre des sports daal di am confiance ne bu ñu ànd ak détermination rek war na nañoo mun a génn ci jogante bi. équipe bu Sénégal moom mooy daje ak équipe bi ne noonu lañ ko war a téye su ko defee mu laaj ñëpp ñëw fekkee mbir yooyu match bu am solo lay doon di gërëm nag suñu mag suñu xarit le ministre Youssou Ndour nga xam ne moom itamit yàlla def na ñu ànd fi tey yi loolu lu rëy la ndax nag mosuma gis équipe bu Sénégal daal di éliminé ci wàllu compétition africaine équipe bu Égypte maanaam bu mu ci mën a doon rek ak classement bu mu mën a jël loolu nekk na lu rëy ndax équipe maghrébine yi ñooy contrôler lu bëri fii ci Afrique sénégalais yi nag am nañ confiance bu baax mobiliser seen ginnaaw ndax yéen leen woon ñu mën a am confiance.